ministre cinq personnes lañ ko soxla avance bi teeloo. cinq ndax gars yi bëgguñoo jël sa avance. ah loolu moom moo jaaxal. mais kon sa waay jël yéen parce que moom moo jël sa avance. waaw ginnaaw loolu damay sant yàlla bu baax dina ci yéen a nekk sant sama ñaar ak sa cosaan. jëf bu ñu fi noonu dañuy ñëw jëf dem suñu yoon wax da ngay wax man maay daanu yow yaay daanu yow yaa ñuy yëngal yow xam nga combat bi nii maanaam yow. demal nga jël jël waay rek maa ngi fa. maa ngi sant bu baax alhamdulilah. petit naka waa Rock énergie. ñu ngi fa ñëpp a ngi si jàmm. ana Modou Lo. mi ngi fa mi ngi si jàmm bu baax est-ce que Modou Lo pare na. waaw mi ngi pare bu baax bu baax. ginnaaw ma sant yàlla jublu seen di sant sama ñaari waajur bu baax di nuyu ñu teew fii nii ñëpp di nuyu ñu ànd ak Papa Sow ak gaay waa parcelle di bégay ñëpp waaw di bëggee ñëpp di bëggee waa parcelle bu baax di ñaanal Papa Sow yàlla ko yàlla may ndam bëggaay tamit yàlla ko yàlla may ndam waa parcelle ñoo ay ñetti bidouwaar 3 3 jaajëf 3 candela écurie Bawol mbooloo salaamaaleykum ansubillah bisimillah inna wani yàlla wama tawfiqukum illa billah maa ngi siyaar ñëpp ku lu muma ku lu góor yàlla di siyaar waa Géejawaay gi ma jugee di siyaar waa Bentag di siyaar waa Daaru ama ya ngay xaañoo ay mbodlooyee kon lu jël mbodloo barke maam serafa pour mbodloo sax lu jël duwa yow ay mbokk ñoo la dugal ci lamb ay mbokk sa kanam bi xam nga eh, awa eh, le 3 fii. kii tëgg le 3. arène bu njëkk promoteur yi dañ doon tibbante tànk. di liggéeyante ah. di defante naka sunu nekk naka sunu noonu ah. tey yàlla def ñu daje fii ànd ñëw ci sama signature ànd bokk ay dat ku nekk taxaw dend ak sa morom ñu def siñaatur bi te yàlla bu baax di julli jolente bi di gërëm suñu ñaari waajur ñi ngi sant Serigne Touba bu wér bawol bawol pire maa ngi lay siyaar bu maa ngi lay delloo siyaar sama xarit nuyu bawol bawol yëpp waaw képp koo xam ne yaa ngi diggante Touba ba Jurbel maa ngi leen di jaare bu baax amin amin mais nag dafa am lu xew Boubacar bisimilah Assane dimanche lay doon fii dimanche fii ci Ibamar dimanche fii ci Ibamar benn date la lamb ju doy waar si kàttanu yàlla diggante mbay guy gi mamballa mbay guy gi mamballa booy Dakar gàkku 2 booy Dakar gàkku 2 Petit Niang Sisa Petit Niang Sisa Calcio parisien ah. dama yem ci cinq combats yooyu rek maa la ko wax amateurs yi xam nañ te am nay ambiance yu bëri yu fi war a am. dimanche Sidi Diop dina ñëw ëftaal bi mu tàkk. drapeau Mamadi nag ma ana Mamadi dimanche nga ñëw. dimanche fii la moom xam na. dimanche fii la. kon Mamadi dimanche. Mamadi chaque jour mi ngi toj ci combat yi. maa la ko wax boo woon Modou Anta wala Cheikh Diaw ñu toj ci combat yi. maa la ko wax naan loolu mënul nekk. ndeysaan mais lépp dañ ko def rek pour jox ko amateurs yi. ñaan yàlla Sénégal def ci jàmm. incha allah. yes. dafa mel ni at ak lu teg wala ñaari at yaa ngi koy waaj. waaw dañuy sant yàlla dañuy sant yàlla di nuyu ñu fi nekk di nuyu suñu papa yi di nuyu suñu yaay donte ñu ngi fi wala tamit nekkuñu fi ñu ngi leen di nuyu. di nuyu képp ku nekk ci stade bi ñu ngi lay bëggee di lay siyaare waaw di wax ne daal làmb ji yàgg na yàggul. su ma nee yàgg na bañ ko jàppee yàgg na yàggul ñun lii leen gëm mooy suñu live mooy suñu lépp comme que keneen ak keneen nu muy xëy di nekkee si leneen kon waaw dañuy sant man sant rek laa ko jàppee waaw mais lu mu gaaw a ñëw parce que maam Serap Fall ñu bëri ko xool leneen moo ñu gënal. mais si te xam nga kii ndaanaan bu ne am naag moom ngoon fii ndaanaan bu ne yëkkati na la def la fii lu leer nañ. ndax ñun dañu doon toog di seetaan télé ba yàgg ñu ne nañ dem seetaani ko ñu xam ni dafa mën bés mën tàkkusaan mën timis mën gee fu mu guddee rek fu mu yàggee rek am na loo xam ne moom lay génnee ndax yow waajal nga loolu yëpp man de sam bopp laa xam soo may wax boo ma tagee wax ma sam bopp ma kontaan mais wax ma sam bopp ma dégg wax la sa bopp waaw maa ngi ñëw ci yow mais moom xamaloo ko dara. sam bopp laa gëm moom laay toppatoo pour l'instant. Euh. lu mu la mën a wax si combat bi. Hmm. damay assuré képp koo xamante ne yaa may bàyyi xel man dama lay assuré ne man combat bi dama ko fonk kii amatuma lu ma koy wax wax naa ko ñaari yoon ba ñetti yoon kii ndaanaanam bu ma taxee fii di koy wax yow du jeex mais man gisuma ko moom man li ma mën laa gëm man loolu laay ñaan yàlla ñëw. indi ko kii dafa gëm combat bi da koo gëm mu jaral ko lu nekk woo ay mboqam woo ay nitam mu jaral ko mu def ay ay réunion yoo xamante ne woo ay mboqam ak ay mboqu boppam kon kii bu woowee ay mboqu boppam man dinaa woo samay nit bopp man mbëru askan laa man ñëpp ma bëgg parce que maam Serre Fall que du ma def luñ may xeebee mais li ma desee si combat bi ngir yàlla nañ ma bàyyi ma bëreeg moom kuñ ma jaxaseeg doomu aadama yi parce que foofu rek lañ ma mën a jaar jaxasemaak nit ñi pour nit ñi mere ma mu ñëw kii na gëm boppam ñëw ñu bëree ci fulla ci fayda parce que maam serafal papa lu mu xëy di entraîné ma xëy entraîné lu ko raw papa lu yaxam mën moom mii di mag man may xale parce que alxuraan sama yax dina mën lu ko raw billaahi wallaahi wa taala kii lu mu ci bañul bañu ma bakkan bii bu laajee bakkan ma joxe sam bakkan barke alxuraan lu ko bëgg benn fan ma bëgg ko gën bu ko bëgg fopp loolu nag laay wax maa ngi woo samay mbokk xoo yaw foole séeréer nu nu xanaa leyaw séeréer mi xooyam na combat fan ke ka xatum na jongwaar a ñoojoor bo faya ko mi xooya fop xooya ndunale fop fana ngaran sitam Samba Dia Diofior Fimela o gore mi hoya fof fajut palmarin wasimo leng francic tam mi o séeréer refum faaloge ngaram bo njangke njina e eh. kii li ma ko wax dafa leer ñun ay séeréer lañ ñun bëre moo nekk suñ deret làmbatuwuñ ko dañ koo daj kii suñ natu la waaw maa ngi ñaan nag ndam rek ndam rek Papa maa ngi lay nuyu di la respecté dégg nga li nga xam ne moom la Siteu wax. waaw Siteu champion la daa prouvé prouvé egg fu war a egg ne ko Siteu champion la daa bëre prouvé ba mu ñëw egg fu ñu war a egg ndax fii place bi kenn du ko kenn du ko maye dañ koy jaay comme prix c'est le prix. ba tax maa ngi ko jox cëram bu mat sëkk champion la war a dajeeg champion maa ngi koy jox cëram bu mat sëkk waaw nekk si li ma yow da ko jox respect daal. non man doomu aadama laa jox respect respect total. kulli doomu aadama rek jox naa la ci ak foo bokk ak foo féete Pape euh, xam nga le premier combat bi dafa yàgg waajal nga waajalaat far corona bi ñëw jaar ci biir moom mu waajal waajalaat fu mu nekk nii dafa mel ni li ci des bareetul ay fan dong ci des le premier ngeen war a sëgg bëre tey sëgg ak sëgg bëre ak Siteu réew mi yëpp xam nañ ne neexul neexul neexul tëgg bëre ak Siteu neexul waaye. waaw ah, Siteu champion la champion bu mag la ma nangul ko léppam nag. yëkkatil micro bi moom fu mu taxaw it nangul ma sama lépp fu ñu wax mu ne kii dafa mën a bëre dafa mën a xeex. xool tànku Siteu ne ko nga liggéeyaat say tànk Siteu lay toll ci loolu. nga xam nga moom léegi day laajte xaw ma dafa xam xaw ma dafa bëgg mais man. dama la wax ne kii kii yu soxla yooyu noonu ay communication yi ay xëcc yi ay tontu ay réponse wallaahi wallaahi wa taalaahi man waxuma billaahi waxuma wallaahi waxuma man waatuma damay ñaan yàlla mais dama la ne man non incha allah moom nga war a njëkkee si lépp mais dama la bëgg a xamal benn affaire gis na ñii xamal lañ am xam nga lañ am si combat bi Papa Sow ku baax la Papa Sow gi jël référence ci communication. te xool nga ma yow man ni ma guddee yow xool nga ma. ma parce que alxuraan yow bu ma la tàncee. non munoo ma tànc si tànc tànc. man damay woo àdduna parce que xale laa te bëgguma topp sama jeunesse bëgguma topp mbooloo bi topp sama ginnaaw wallaahi maa ngi ñaan. ci Baye Fall bi may jéem pour doon ko maa ngi ñaan képp ki góor yàlla nag ma ñaanal parce que maam Sara Fall ma fekke bis bi moom fekke ko jàmm maa ngi woo samay mbokk di woo ñi may jàppale surtout Fouta Mansour maa ngi lay woo pour nga jàppale ma di woo madame ki nga xamante ne Aminata Fall Tall FAO maa ngi lay woo sama yaay ji di woo sama Serigne Serigne Sidi Mbacke nang ma jàppale ci combat bi di woo Diamaguène banlieue bi ak li ko wër lépp Yeumbeul Keur Massar Boul que maam Serap Fall sa maa leen di woo ndax leer na ma leer yàlla kii fa mu dëkk maa ko bu fan billaahi sante bañ na nag foofu la dëkk bàyyi naa ko ay mbokk boppam mais billaahi kii seen biir kër sa am naa fa euh, Papa Sow nga Siteu mi ngi woo kër dégg ma moom mooy sama premier fan Siteu mooy sa premier fan léegi nee na man référence la référence si man ki wax loolu rek mooy am na soppi si yow man nee naa tu es un mooy am naa soppi si da ngay estimer boo bëggee ma ne Boubacar moom lu mel ne loo ci man mooy am na cofeel ci man su moom la njëkkee léegi nag man loolu si fayda dem sama yoon barka maam Serapha bëre ci fulla ci fulla fayda ci jom man amateur bu ma seetaan kontaan man bu dee dinaa dugg ci digg géew di am lu may tiit am lu may bàyyi bëre man xamuma loolu man jëf jël xam liggéey rek laa gëm. mais mais papa Sow tam du tiit de. waaye kii di jàmbaar mais kii lu ne ñàpp la xam nga ñàpp bu naaj bi ñëwee day wàccaat man lu ne nder laa loolu du tee. deuxième combat muy bëre grand combat. ba tey yàlla defaat lii namoo moom da ngay correct mais yàlla na ko yàlla jàppale moom mm. yàlla na ko yàlla may gudd fan mm. ambition yi mu am ambition yi mu am ba mu des combat bi le premier août mm. yàlla naa ko daan le premier août ambition bu mu am yàlla na réussir euh, loolu ñaan la taxawal man man man man dam bu mujj bi rek loolu ñaan la mi ngi lay ñaanal ñaan ne neel na la daan le premier août waaye sa ambition na continuer kon carrière bi daal na continuer la ñaanal fu mu nekk nii waaw man balaa may tontu damay profité di gërëm euh, président équipe jàmbaare suñu académie bu ko teg ci loxoom di nuyu bureau bi yëpp di nuyu le doyen Balla Diouf ma àndal mu bàyyi yitteem ay ñoom Ibulaay bala gars yi ñoom bëri ñoom Franc Goro Soog gars yëpp ku ma lim juum ñoom Dame Sène ah ñoom ñëpp quoi maab sa fàttewuñ kenn ah Pape Goro Papa Gueye gars yëpp di woo autorité parcelloise yëpp bàyyiwul kenn képp koo xamante ni kilifa nga nekk parcelle rek ñu lay woo ci combat